kon tojati naa fa nee na ma toj nga fa noonu la demee gars yi gis ngeen li xew démb biir Paris Bercy ñu naan ko accord arena Papa Youssou Ndour toj na réew kenn xamul lii lu mu doon mbooloo mi bari àdduna bi muy si nañu ko parisiens yi kontaan nañu sénégalais yi bëgg nañu c'est la fête internationale gars yi fu ne la nit jóge Angleterre Côte d'Ivoire Canada ouest l'ouest nord sud brésilien yi ñëpp a wàcc woon dem mu ne nag loolu du ko fa yamale ndax am na ñoo xam ne dañoo am bugg amuñu woon tey ñooñu la bàyyi xel bu ne xam ne ni Papa Youssou dafa yéwén te dafa bëgg ñëpp di nekk gars yi moo tax mu indi leen fii ci Méridien étoile fii Méridien fii Méridien en face palais des congrès ah gars yi en face palais des congrès Méridien la Youssou Ndour di tëggee tey incha allahu rabbi day teel a commencé vingt heures vingt heures et demie Papa Youssou dina yéeg sur ñu bëggee soirée danse la soirée mbégte soirée tàggatoo yi soirée bi fii lay xewee yéen a ngi gis salle bi fi mu ne nii ñu ngi ci installation yi ah gis ngeen ni ñu ko defee li fi nekk ci ay seize matul sax trente. dañ leen a yaatalal fii ba mu yaatu pour ngeen mën a danse bég soirée bi fii lay xewee méridien fii ci suuf gars yi pare leen ku amul billet boo ñëwee ba méridien boo ñëwee ba ci salle bi billet yi am na fi. billet yaa ngi fii ñu ngi ko fiy jaayee ku amul su fekkee nag am nga ku la jaay mën nga woote ci affiche bi am na numéro yu fa nekk mën ngaa woote nga jënd billet bu fekkee nag munoo woote nga jël sa taxi ñëw ba biir méridien ñu jaay la billet am na ñu toog ci buntu salle bi boo ñëwee dañu lay jaay billet soirée bi cent euros kese la nga jënd ko ñëw enjoy ak avec Pape Youssou Ndour du yomb fii nag moom tey xam ngeen ni da ngay jàkkaarloog moom jege ko muy way ngay as lu neex fii si mbopp man man fii ndax xam naa ne fii moom xam naa li ma fi nar moom xam naa ne du ko wax incha allahu rabbi mais pare leen xam ni papa Youssou Ndour kenn du moom morso bi foofu la jeexee salaat yaa koy wax donc raba ma ñëw ma ñëw ma ñëw daa sama daal la mu ne la raba raba asaba dana ma raba raba déedéet yaa bañ boobu ولدت نتيجة مساجد بنت الخطاب leen ci ay di jaaxal jóg bu la tëddal di set rabbi sa tànk bu la tëddal di set rabbi sa tànk aca aca Thank you. thank you